حمدا لمنزل دنا ومنزل الشفاء والدواء حمدا لمنزل waaye di sant rek. Mm, sant sant ñaan yi daal. yëpp gis nañ ko de. li <laughs> li ñaan ngay ngeen dolli rek. waaye tubarkàlla. tubarkàlla. dëgg la dëgg la. dëgg la dëgg la dëgg la. dëgg la mm, moo tax it day tubarkàlla. alhamdulilah ñu ngi sant bu baax a baax. di ñaan moom balaa màggal gi rek. kenn du wax na ma rek. <laughs> lan laa na mag ko. <laughs> <laughs> Ah, moom de mën na ko. waaw da ngaa ne de. waaw dëgg la wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi. ñu ñaan rek. waaw jërëjëf Mbacke jërëjëf jërëjëf. waaw ñaan rek jërëjëf. ñoom ñi nag daaw. xam nga ñoom ñaan ak professeur Lamine Gueye. ñu doon saytul comité d' organisation bi. lépp lu jëm ci wàllu kër docteur yi. ngir jàngoro ji ak yu mel noonu. nga xam ne ñëwoon nañ fi. nga ñaanal leen. suñu borom suñu borom may leen ci ndam lool nag. lépp di ci sa barke. ren nag ñu ne ne bala tàmbaliwaat dara mhm. faaw ngi dikk ba ci yow mhm. yeesalaat ndigal li mhm. su ko defee nag soo ko dem tàmbali liggéey ñoom ñi ñëpp nag sëñ bi ñoo ngi liggéey ci li ñuy jàppale commité d' organisation bi ñoom ci wàllu wàllu docteur la seen kàllaama léegi nag. <laughs> mu ngoog moo tax lépp lu ñu defoon daaw te nga ñaanaloon ñu te sa barke yi taxoon yi ñu am ci ndam. loolu dañ ko bëgg a reconduiraat mu gën a yokk sax. loolu amoon lépp te biir lii xew it liggéeyoon nañ ci bu baax ci ndigal yi di gouvernement bi di wax ak yi docteur di wax ak soreele beeg masque ah, yeeg gel yeeg ren nag lii lii ñu ci yokk it mhm. gëstu nañ ko te buñ sañoon it waxtaan ceeg askan wi mooy mbiru vaccination yi ah, loolu moom ñii ñëpp seen xel dafa màcc ci loolu waaw léegi nag ñu doon jël si ndigal surtout jël si ñaan daaw ñaanaloon nga ñu ñu am ci ndam. ci li ñu liggéey ceeg Serigne Cheikh Abdou mi ak comité d'organisation bi. ñuy sàkku si waat ñaan ak ndigal. ñu ngi ndigal bi yàlla si ñaan dëgg la xam dëgg la. xam ne dañ koy wéetal rek. Mhm. ndax dañu ñaan ci barke sëñ bi. Mhm. ak sëñ bi moom dalal ko. dëgg la miin moom la këram. dëgg la moom dëgg la ci ñaan rek yàlla mën na ko. miin waaw dañuy dañuy wéetal yàlla te doylu sëñ. waaw doylu sëñ bi ci ñaan ci barke. waaw yàlla rustu ko rek. jërëjëf jërëjëf Mbacke jërëjëf. wéetal doyloo sëriñ bi. te ñaan ci barkeem. te ñaan ci barkeem. wéetal yàlla doyloo sëriñ bi ñaan ci barkeem. waaw waaw waaw. léegi ñëpp toog gaa gërëm ñu yi ak mooy taxawaay bi rek ñu ngi sant ci taxawaay bu baax a baax. tabarakallah. waaw loolu yëpp la wax dëgg yàlla. waaw tabarakallah. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. amiin amiin amiin amiin dañuy sant rek ci liggéey bi ñu am chance dóolaat ci suñu loxo ci ci sa coordination parce que unité bi moom léegi mook euh, comité d'organisation bi ci biir lañu nekk yàlla def nag ñu am xeewalu ñu dénk li ñuy wax alerte ak prévention loolu moom fu ay millions di nit di tase yaakaar naa am na solo lool ñoo xam ne yàlla may na leen ci xam-xam yu tuuti ba pare surtout ñu nekk ay taalibe engagé wu li euh, décidé liggéeyal sëñ Touba ci màggalam bi ci màggalam gi ak ci communauté bi léegi nag lépp lu ñu defoon daaw yéen ñu ñaanaloon sëñ bi jox ñu ci ndigal ñaanal ñu yàlla defoon amoon nañ ci ndam ñu yéenewaat euh, loolu ñu ci defoon daaw li ñuy def ren ëpp ko taxawaay buñ ci amoon daal ñoom ñii ñëpp taxawaat nañ ci partenaires yi ñu nga xam ne ñoom lañ doon liggéeyal ndool daaw ñoom ñëpp joxaat nañ ñu seen engagement ne dañoo bëgg a taxaw ci liggéey bi léegi nag euh, dafa taseeg ren encore lii xew te daaw xewoon na waaye eh, ngir eh, suñu borom ak ñaanu sëriñ bi gis nañ ni màggal gi amu ci woon benn impact walla benn njeexit loolu nag am nañ ci yaakaar ren moo tax ñu seeti woon sëñ bi pour mu ñaanal ñu ci joxaat ñu ci ndigal ci lii xew nag daaw yaakaar naa stratégie bi amoon na ci solo comité d'organisation bi ñu jàppale woon bu baax a baax ñuy sàkk yet ci yow mi président bi comité bi jàppalewaat ñu xam nañ ni sax loolu moom daanaka am na ba pare ñu liggéeyoon ci liggéey bu rafet ak yow mi ko jiite liggéey ko ak sëñ Cheikh Abdou sëñ Ousmane yi jàppale woon nañu euh, ci loolu lépp luy ndigal lu gouvernement bi joxe dañ cee bëgg a jàpp liggéey kook nag waa ministère de la santé ndax ñoom ñoo yore loolu ñun dañoo nekk ci biir communauté mouride bi jot ci ndigal waslu ci àq moo ñu war liggéeyal ci sëñ bi ci loolu nag ndigal yi li ci ëpp moo solo mooy loolu ñuy wax mesure barrière muy masque yi di gel yi yokk ci li ñuy wax distanciation sociale yàlla def na ne li muy doon yëpp ay millions nit distanciation sociale mën naa am stratégie bi ñu tëraloon daaw indi na ko parce que fexe woon nañ ba fépp fu ñuy ziyaare nit ñi jël seeni mesure waaye it bañ a tàncaloo te loolu distanciation sociale la ñu ñu de euh, àdduna di dox ba ren leneen dugg ci beneen moyen prévention muy lii ñuy wax ñàkk yi loolu nag ci suñu euh, kuréel gi am na ci ñoo xam ne it ci loolu la leen yàlla may ñu gëstu ko ce qui fait que loolu it bëgg nañ cee liggéey wax ceeg askan wi noo xam ne yaakaar nañ noonu mën a wax noonu lañ ci mën a waxeek ñoom ndax euh, seetlu nañ ne ci mesure prévention yi gën a am solo la bokk waaw loolu yit ñi sàkku nañ ci ndigal sëñ bi sàkku ci ñaan di ci ñaan it njàppale ba ñu mën cee wax ndax lépp a ànd rek mënuñu wax ne li gën lee mesure barrière ci la ñàkku yeeg vaccination bi ci la lépp daal ci la ñu fas yéene ci liggéey nag bind nañ plan d'action bi nag ba mu taxaw xam naa dinañ ñëw partager ko ak comité d'organisation bi parce que loolu mooy voilà altine sax la <laughs> waaw sëñ Abo woon na ma comme ça ñoom itam ñu xam li ñu nar a def euh, xelal ñu ci ñu soog a commencé nag def ay jéego dañ ne woon nag balaa ñuy def benn jéego ñëw ziar sëñ bi seet si la ànd ak sëñ Cheikh Abdou loolu mooy suñu tànk tey ñoo ngi sàkku ñan daal waaw kay. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi leen di delloo am bu baax a baax di leen sant di leen gërëm ci taxawaay bi ci li weesu ak ci li ak seegut euh, li ëpp solo nag ni ko sëriñ Abdoul Ahad Mbacké waxee léegi mooy laata ngeen di def dara dem ngeen ci. Cheikh Mahmoud Mountakha mi nga xam ne mooy fii Serigne Touba te di boroom digal li te lépp ni ci loxoom mm-hmm. dem laaj ci moom digal ba mu jox leen ci digal salaat kon ni mu leen ko joxe woon daaw wóol bi di ko ñaan ci soññee ci te kàddu yi sëriñ bi wax léegi ne moom la wax doy na sëkk mm-hmm. mooy doyloo loo yaakaar yàlla te doy loo Serigne mm-hmm. te jéem a sàmmonte nag li nga xam ne yéen ñi nga xam ne yéen la suñu borom dénk loolu. ni ngeen jàpp ni la war a deme ngir nit ñi mën cee mucc loolu euh, moom wane na ci misaal ndax ku ne xam na Cheikh Mamadou Mountakha fi mu toll ci diggam ak boroom ku ne xam na fi àgg ci wakiilo hmm. ci loo xam ne ñun ñi ko xam démb xam ko tey xam nañ ko xam ne ni moom mm, dundut dara lu weesu li suñ boroom santaane ci moom waaye ku nangu dogalu bi yàlla hmm. ba tax sabab sax lu ci ne fa ko yàlla yemal rek fa la ci yem mm-hmm. ba ci lii mu woote woon bu yàggut yëg-yëg bi mu ci amoon ak lam ci wax waaye dégg ngeen kàddu yi mu wax bi mu ko waxee bi ne ginnaaw suba la mu ne ma ñaan gi ñuy def kat dañ koy def toroxlu dellu ci yàlla tuub mm-hmm. ngir yaakaar yàlla mm-hmm. waaye nag gàlluñ ko dara ci ñaan gi ndax suñ borom moom moo yor gi moo yor coobareem buñ ko xasee ba ñaan rek li des dañ koy bàyyi ci coobaram bu fekkee maye na ñu sant bu fekkee wutit ñu xam ne loolu mooy li gën ci ñun ma ne ko loolu da mooy baytu Sëriñ Tuubaa bi wax ne yaa rabbi in a'taytani fa shukru wa in mana'ta farida wa sabru kon mu dëppoo baytoo kon moom lépp mu foofu la ko teg kon nag doy na sëkk misaal ci képp koo xam ne yaakaar nga Sëriñ Tuubaa wala képp koo xam ne ab jullit nga wala képp koo xam ne ku dëkk ci réew mi tey xool nga xam fi mu toll ak ni mu doyloo yàlla ni mu gëmee Sëñ Tuubaa ni mu doyloo borom ba nopp ko masque yëpp mu di ko jëfandikoo ngir wane ci aw yoon loolu nag bëgg dimbali nit ñi loolu tax mu di ko def boo doolee ci waxi Sëñ Bay Jaxate dafa am ñaari aaya wayete jënn bu xal asqal la si ak wa sayu jën bu xal atqal la si loolu mooy li sëriñ bay jaxat di wax nan eh, kiy daw kiy daw lu bon ak ki lu bon di daw mooy ñaar yooyu mm-hmm. wasayu jën wasayu jënd bu ak yetta jënd bu mm-hmm. mooy loolu kii daw lu bon nga njëb murid la bu yëggagul mm-hmm. waaye nag ki nga xam ne daaw na borom moom ñaan lu bon koy daw daa cee teg ne bul dégg nag wax ji ma wax tax nag nga naan yónneen da daa musloo ko daw laajul lu xew loolu mu daa musloo ko dafa daa xamal xeetam bi mhm. waaye juddóor ji fu mu war di am mhm. kon sëriñ bi bu ngeen gisee lii mu di ko def mhm. mooy day wone nit ñi fi war a jaar te moom loolu responsabilité ma ndax ku fi mas a nekkati Sëriñ Tuubaa ku ne Cheikh Abdoul Ahad am na kàddu yu mas a yëkkati jëme ko ci taalibe Sëriñ Tuubaa yi waaye ñoom doon waxal ci biir wax na ne ne responsabilité am diggam ak Sëriñ mhm. ci lu ko Sëriñ Tuubaa woon kon képp ku fi nekk di Sëriñ Tuubaa lépp loo diggal nit ñi rek loolaay liggéen ci ñoom mhm. Mhm. loolu te topp ndigal li ci la njariñ li ne kon nag loolu nit ñëpp gën a góorgóorluwaat ngir xam ne ne bu ko sëñ bi defutoon te santaane ko it ñëpp war koo def ngir toppi ko ndigalam na rek mu di ko def ba noppi jiitu ca di ko tegtale te jublu ci daal lu may bëgg nañu sàmm te baax ki Cheikhul Khadim Euh, ak Cheikh Ibrahima Fall daana nee na Sëñ Tuubaa ni mu ñu yare lépp lu ñu digale moo ñu ci jiitu mm-hmm. bu dee jaamu yàlla moo ñu dàq jaamu yàlla moo tax fu mu ko mosaan wàcce ci liggéey bi mu koy liggéeyal mu ne ko yaa ma njëkk a xëy ci liggéey Rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam te nga wàcc ba ndëgg ni kon ñu itam foofa lañu war a ne mm-hmm. lii nga xam ne mooy li fi xew nag di mbas mi coobare suñu borom netti naa ko ba tàyyi mhm. ndax ci njaarim la ci sëriñ Tuubaa waxoon ba mu àndee Tuubaa bi ànd ak sëriñ Balla Coro ba mu dikkee mhm. eh, di ko leeral fi situation yi toll fekk sëriñ boo xam ne lépp mhm. sëriñ bi ne leen lu fi suñu boroom wàcce la waxtu ko jeexalee dana jeex bañ jaaxle ba jaaxlaa ñu ne xëy na sëriñ bi dafa déggul fi àdduna toll moo tax bi Cheikh Mamadou Mountakha wootee am ñu bari di jaaxle. Mm-hmm. may leen jàmm képp ci topp. Mm-hmm. ndax màggal Tuubaa gi daaw. Mm-hmm. ba mu ci joxe ndigal. ñu bari jaaxloon nañ waaye jàmm ci topp. nit nag la la weesu nga jàng ci gëmi ca. li ci ëssiw li nga ëssiw daa war a dara sama xel. ginnaaw bi tubaab bi ñëw bi mu dellusee di gën a leer sëñ bi sëñ bi bu tàmbuli rek sëñ ne ko xulinal mawtal la si tafirroona minhu fa innahu mulaaqikum tubaab bi ne waxaat ki mu àndal ne ko ten koo gën a leeral su ñu ne ko ay namaatukoono yudrikum mat wala kuntum fii burujin mushayyada ba bis ak mu xëy wax ne yàlla suñ doom mi mi ma mi fi wàccoon jàngo ko fi te dégg ci màgg bi buy jóg mm-hmm. na koo xam ne xam la da koo dal mu mm-hmm. bi sëlmal ma ne ko maa ngi nii de wéeru ji waaye bu ma dee danga koy layoo sa borom sëñ bi xëy ci jàkka ji bis rek dem fekk ko këram ba mu ko jubee rek mu ne ko bu ma jege de ndax damaa pes ndax pes xam nga ne ko ku ku mas a jege rek kenn dootu ko nettali waaye sëñ bi daa ñëw ba tiim ko jël loxoom teg ci boppam daal ko tàggale ba mu fa sansa mm-hmm. loolee nag mm-hmm. moom foofa la àggoon moo tax suñu kilifa gu baax ba sëriñ sox yi bu daa wax ne dafa am ci magi magi sëriñ Tuubaa kooku ma saaj na ko ah ñun magi taalib yi dañoo amul jaaxle ndax gis seen ngeen fonk docteur loolu te ñu gis ne seen waaja ku ku ku bañoon loolu sëriñ bi sëriñ bi ko waaw ah, moom de dañoo bokkut ak moom ndax moom de bu ma sànn jàkkaarloo bu wéree de danaa ko jàngoro bàyyil diw mu dem mu ne ko ku mënta àgg foofu nag ñu doy loo ko tey ñaan ci barkeem te leen di yebal ci docteur yi waaye dañ ñoo la fay jiitu waa kër Sëriñ Tuubaa yëpp ci ñi ñu xam ku ma sa wér di ci seen biir kër dañ la yebal ci docteur yi kon loolu cër la bu leen suñu borom jox fasalu ahli dikri in kuntum laa woon moo fassiroon yi ñu bëri danañ ko firee ci anam yu bokkut waaye bari na ci ñoo xam ne wax nañ ne tàbbi na ci biir kon yéen li ngeen jàpp ne moo ci musle mooy yi ngeen wax yëpp di ay nattuwaay ndax euh, nit ñi itam léeg lekk li ñuy wax tanaaxud da leen dal tanaaxud mooy contradiction ndax nu'minu bi baax di wa nakfuru bi baax di jooju alxuraan def moo leen dal bëgg gëm lii wedd li ndax koo xam ne bu sa bopp méttee boo demee si docteur mu digal la aspirine nga naan ko nga gëm ne dangaa war a wér boo si buro war a war a dem hôpital kon jàpp naa ne ñoom itam bu ñu xoolee ba gis ne lii moo ko mën a saafara buñ la ko waxee danga ko war a gëm ci ci nattuwaay te gëm naa ni itam sekkari suñu borom ci biir ndax yàllaa leen si wàcc mhm. ci waxoon na ko yonte yàlla Moussa lu gudd lu wax njur del si waat kon daal ñu ngi soññewaat mhm. di rafetlu di sant waa comité bi yëpp mhm. ñi ko seq rawatina ñi nga xam ne ñoo ne ci bopp yi bàyyiwuma kenn waaye bu ma ci duddee sëñ Ousmane tudd ci sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mi tudd ci sëriñ Cheikh bi ak yeneen commission yu ko seq yëpp mm-hmm. moo mën a yóbbaale mboolem ñi ci ne ñëpp mm-hmm. di sant ñoom itam ci seen pëstéef ak seen taxawaay mm-hmm. ndax lii ñuy def lu ci Cheikh Mouhamadou Mountakha joxe ndigal bu ma leen ko xesee ba wàcc wax rek noppi laa ja ñoo ci def yitte daaw xam nga ne def nañ ci taxawaay bu mat sëkk def ci pëstéef ba ñu am ci ndam ginnaaw ñaaru sëñ bi Pastef boobee nag xam nañ ne waxuma man sax waaye Cheikh Mouhamadou Mountakha mi ngi koy defal xam ne pay gi ci loxol Sëriñ Tuubaa la ne loolu nag loolu dund moo tax soxluñ ko ko xam soxluñ lañ ci def nit ñi di ko xam waaye nag kañ ko seq di sëriñ bi xam na ko kon yàlla lañ ci gën a defal kattan ngeen leen ci defal ndimbal ngeen leen ci defal tawfeex ba ndam yi ñu ci amoon daaw ren ji ñu am ci lu ko te gëm naa ne itam yàlla euh, la ma waxoon rek Serigne Saliou Mbacke waxoon ne yaakaar ju tas ñun yoonu kër Sëriñ kon nag ñu ngi rafetal njort te delloo delloowaat lépp suñu borom nag mi nga xam ne moo borom kattan gi di borom sañ-sañ bi te mooy def mooy dindi loolu it lu def rek moo gën ci ci nit ndax li wax ne asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an kon nag ñuy soññ bokk taalib yëpp ak bokk jullit yëpp ñu jéem a gàttoon ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha li nga xam ne santaane na ko ci lépp ngir bëgg sàmmoon teg xam ne dañoo nekk ci biir réew mi doyloo suñ Tuubaa yaakaar ko xam ne mën naa dox suñu diggee lépp dëkk feek suñu nawle te Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daana wax ne ku la yaakaaru ku ne sam nawle kon ñi dëkkalu dëkk réew mi te bokkuñ luñ gëm itam war nañ leen a siddi ndax àq dëkkandoo def for dañoo bokk réew mi kon it ñuy sàmmanteeg loolu lépp loo xam ne ñëpp ko def ñoo koy àndandoo ndax euh, dañoo nekk ci biir réew mi nekk ci biir àdduna te mënuñoo beddiku ndax suñu saar yi daana ko wax lépp loo xam ne day wan ne tubaa mi ngi beddiku ci réew mi rek nañ ko daw lépp ndax ndax Touba mooy xolub Sénégal kon ndegam mooy xolub Sénégal nag lépp lu ñuy def rek luy war a gën a jëmbal benn réew mi la ñuy def kon nag xalaat yooyu yëpp nag suñu kilifa yooyu dañ ko jëlee kon ñu ngi ñaan yàlla màggal yi ñu dugg ci jam amiin amiin génn ci jàmm day ci toog fi waxtu suñu borom musul ñu ci. jàngoro ji bañ a law ndax xam ngeen ne jàngoro ji li mu yóbbu ci bakkan bari na. Mm-hmm. am na ñoo xam ne itam bu fekkente ne romb na leen jàll dana bàyyi ci ñoom jeexit. Mm-hmm. muy yàq ci koom-koomu adduna ji bari na. Mm-hmm. ñëpp xam nañ ne jamono ju metti ci nit ñi. te loolu lépp yokk na ci lu bari. jamono ji metti woon na mu ñëw dolliwaat ko. loolu lépp na kon lépp lu tax. loolu gën a jeex ñëpp ci war a góorgóorlu def ci yitt def ci posté def ci taxawaay mhm. te diglu leen ci yéen itam mhm. te bañ cee jooy génn mhm. ndax loolu suñu borom leen ko jagleen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu rabbina wa jaayi mustafa salla alayhi rabbuna kama salla